dof comme arrêté film bi waay kee laay waxal maa lay gis maa lay gis comme arrêté film bi bokkal si waat bi Cheikh Modou Kara moo ñu jàppal jaa Bamba Kaam jaa Bamba Kaam jaa Bamba Kaam jaa Bamba Kaam fii day fooy fii day jug fii day jug pneu bi pneu bi jërëjëf jërëjëf taxaw na ñëpp jàpp booy Kobé jàmbar nó ñëpp jàpp bon kaay bi để ở oto bi xaj na Tchau, Tchau, Tchau, Tchau, Tchau, Tchau, Tchau, Tchau, Tchau,